mbokk jullit yi gannaaw bi nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu ñépp di ziara ñépp ci bésu ajuma bu tedd bi yàlla nañu yàlla defal li ci leer yépp ñu ziyaare aima yi jiital ci imaamu ratib bi ak ñu topp ci gannaawam ziyaare boroom xam-xam yi di leen ndokkeel ci événement yu am solo yi ñu jóge bu yàggul lañ jóge ci màggalu sunu maam Cheikh Ahmed Bamba fan yi ñu jóge ci màggal sayyiduna Muhammad juddoom kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax lépp loo xam ni def nañ ko ci mawlud bi te jaamu ci yàlla rekk tax yàlla nañu ko yàlla fulal ndax màggal juddu sayiduna muhammad li ëpp ci boroom xam-xam yépp nangu nañ ko li tax ma wax ne lu ëpp ci borom xam-xam yi dama wax ne wàllu diine néew na benn masala ñépp ànd dëppoo ci kenn ku nekk nag position ba nga nekk man ci sama wallu bopp duma la ko tere ndax am nga sañ-sañ bi naka noonu it position bi ma nekk yow it war nga am saraxatu sadri nangul ma ko looloo tax ma ne ñi nga xam ne nag nangu nañ mawlid te ñi nga xam ne ñoo ci wax bind ci di ay boromi xam-xam di al muhaddisiin te mooy ñiy jàng xam-xamu xadis lu mel ni imam jalaalu suyuti ak ñu mel ni ñoom imam nawawi ak nu xajar al xasqalaani ñoom ñépp nangu nañ juddu Seyduna Muhammad nga def anniversaire bi waaye juddu gi màggal gi ni ko sunu maam Seyda Aji Malik waxoon boo koy màggal na ko màggale ci sunna ala azimu leylal wiladati xisbatan isa lam yakun nahwal arami odulu maam Maodo dafa wax ne nangeen màggal juddu yonent bi waaye condition yi mooy bu fekkee ne lu xaram du ca am loolu ñu wax nag ci baytu boobu am ñu wax ne kon dañ ko war a bàyyi ndax gàmm dina am lu xaram du fa am ma ne loolu du lay bu doon loolu aj màkka bés bu nekk ñu di ca dégg ay safaan est-ce que safaan boobu ñuy def foofu est-ce que mën na tax ñu ne dootuñ màggal dootuñ dem màkka déedéet ndax nag foo dem mbooloo moo dem am na ñoo xam ne yàlla moo leen tax a jóg waaye am na loo xam ne leneen la leen tax a jóg kon loolu yi tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax màggal sunu maam si Ahmed Bamba radiallahu taala anhu waxoon nañ ni bi dikri saalihin tatanassalu rahmat maanaam toog di tudd gaa yu baax yi mu ne yooyu ci la yàllaay wàccee yërmaneeb kon ñoom it màggal seeni jëf macha allah lu am solo la waaye moom bi muy wax ci màggal moom sunu maam si Ahmed Bamba dafa waxoon ne taadimuhu bi sunna na lil janna nee na màggal juddu Seyduna Muhammad teg ko ci sunna nee na loolu dina la mat ba yóbbu la aljanna kon yàlla na ñu ci yàlla boole bu ko defee ñu ñëw ci sunu waxtaan sunu waxtaan bu ñu ko temps bi mayoon thème bi nga xam ne moom lañu waxoon ne moom la ñu mooy ahamiyatu taawuni bayna afraadi almujtami al amru bi amara al islaami bi taawuni ala albirri wa taqwa beneen bi mooy min suwari taawuni ala albirri wa taqwa wa min suwari taawuni ala al ismi wal udwan thème bi temps bi duñu may pour ñu wax li nga xam ne moom la ñu préparé ci thème bi dama wax ne importance bi nekk ci jàppalante dimbalante ci biir individu yi waaye ci biir penc mi beneen bi ci des mane yàlla ci boppam mooy digle a taawunu alal birri wa taqwa boloon moo doon ñaari point bi ci thème bi ñetteel bi mooy ñu joxe ay exemple luy wone at taawun alal birri wa taqwa waaye ñu indi tamit ay exemple ci at taawun alal ismi wal udwan te mooy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye bañ a dimbalante ci ludul ci bàkkaar ak noonoo thème bi mooy ñetti point yooyu nga xam ne wax naa ne moom la préparé woon ci benn xutba bu ñu defoon ci sunu jàkka ju jumaa ja waaye xam naa ne temps bi duñu may pour ñu développer ñetti point yooyu ci xutba bi li ci des mooy dañu wax ni yéen mbokk jullit yi a taawunu baynal naas amrun daruri yi amrun rabbani yi minhajun maanaam dimbalante mbokk yi lu yàlla subaanu wa taala digle la waaye dañu waxit ni mën nga ko tënk it ci wàllu ngëm yàlla la bokk kon nécessité la itamit ci penc mi ñu ne tax lu tax mu nekk nécessité mu ne laa yumkinu l istighnaa anhu wa huwa fitratun wa jibillatun fatara allahu alayha alxalqa maanaam yàlla ci boppam ni mu mooñee doomu aadama amul kenn koo xam ne soxla woo ndimbal amul ak niveau ak daraja boo mën a toll rek soxla nga at taawun président bi soxna a taawun ministre yi soxla nañu a taawun directeur de société yi soxla ñu a taawun élimaan bi ci jàkka bi soxna a taawun délégué de quartier bi soxla na a taawun mooy dimbalante kenn mënu ci mucc yàlla moo bindee noonu nit ci àddina si benn ngay mag walla ngay ndaw wala ngay góor walla ngay jigéen am nga koom-koom wala amuloo ko faqiir nga wala xani nga kenn ku ci nekk rek yàlla def na nga soxla ku le dimbale ku soxlawul ki ko dimbale mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad ku dul kooku rek soxla nga ku le dimbale alquran mooy wax ci ne war nañ di dimbalante laqad jaa nusuus fi kitaabillahi wa sunnati rasulihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam taxusu ala taawuni ala alxayri wa anwaai lbirri ma ne alquran moo indi ak xadiisu sayiduna muhammad di ñaax nit ñi ci dimbalante ci lu baax ak yiw ci mboolem xeetu baax yi rek dañ ci war a dimbalante moo tax mu wax ne taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi udwaan yàlla nee na na ngeen dimbalante comme yàlla moo ko digle nag képp koy jullit rek war nga fexe ba bokk ci ñiy bokk bu ñuy dimbalaate dina ci ñëw nag kenn ku nekk sa ndimbal fan lañ ko soxla bu ko defee yàlla nee na nañu dimbalante alal birri wa taqwa al birru nag buñ koy wax kullu anwaa'il xayr min al birr lépp loo baa xam ne lu baax la lu yiw la dangay dugg ci al birru ak xeet mu mën a doon nag lu mu tuuti tuuti tey luy baax rek yaa ngi dugg ci albir benn ba wax la wala jëf la amul la ci tuuti waaye nag mu terelee nag bu leen dimbalante ci noonoo ak bàkkaar te mooy gis ku ñuy sonnal nga dem am complicité ak kooka di ko jàppale loolu moo taxoon sunu maam Sédaaji Waali waxoon ni a taawunu laa yakunu illa ala albirri wa taqwa amma ida kana albirru ida kana ataawunu ala alismi waludwan wa hada laysa bitaawun innama dalik a taamur dafa wax ne dimbalante moom nee na mbaax ak njub rek la war a bon doon mu ne waaye bu fekkee ne ndimbalante ga dafa nekk ci noonu ak bàkkaar su boobaa mënatuñ ko tuddee dimbalante waaye kompaloo lay doon kon loolu Seyduna Muhammad wax euh, alquran wax ko Seydi Aji Malik ñëw waxee ko façon boobu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi nuyu nag sunu sëriñ yi doog a yëg si ndax ñun buñ taxawee fii taxaw seen kanam ñoom Oustaz Adama Faye ak sëriñ Moustapha Samba ak ñoom xalifa Babacar ak ñoom Cheikh Ibrahim dañu xaw a am difficulté ndax ñooy suñuy sëriñ waaye luñ ci juum rek ñoom bu ñu dellu siwaatee fii danañ ko mën a defaraat kon beneen bi ci des mooy lii wane ne dañ war a jàppalante alquran moo wax ne waatasimu bi xablillahi jamian waaye nag wala tafarraqu na ngeen fexe ba mooy yéen ñépp ci buumu yàlla gi waaye rekk bu leen féewaloo waaye ñun nan lañu def aaya boobu léegi wala tafarraqu boo yoroon sa micro trottoir di laaj nan nga dunde aaya bi ñi ciy examen ñi ciy jàll dina néew lool ndax li tax ñu lii lii indi féewaloo bi dafa bari boo demee ci politique bi féewaloo la boo ñëwee ci diine ji ñu bokk féewaloo ngi ci pëccëxoo boo demee ci quartier yi pëccëxoo boo demee ci biir kër yi pëccëxoo kon kañ la fiy jeex te loolu nag ñun ñoo ko def mais l'islam waxuñu woon loolu ndax jullit Seyduna Muhammad mu wax ne al muslimu aqul muslim jullit mbokkam dëgg-dëgg mooy jullit ni moom waaye rekk na fexe ba di ko jàppale beneen bi ci des mooy fa haadihi al wilaaya alquran mooy wax ni wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna an il munkar wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna zakat wa yutiuuna allaha wa rasulahu alquran moo wax ni jullit ñi góor ñi ñi gëm góor ak ñi gëm jigéen kenn ku ci nekk danga nga war a fexe booy dimbale sa morom ca la mat moo tax dañu wax ne alwilayatu bayna almuminina taqdi at tanasur wa taawun ala kulli xayrin filan aw amalan nee na aaya bi walaaya bi ci baaduma awliyaaw baad nee na liñ ci jublu mooy dimbalante bi war a am jàppalante bi war a am solidarité bi war a am diggante jullit yi ci jëf nag wala wax ala kulli amalin saalihin aw filin saalih kon bu yàlla waxee loolu ba pare waaye teg ci nag wa yaamuruuna bil maaruf digle lu baax tere yi tamit wa yanhawna anil munkar di toll tere lu bon wa yuqimuuna salaat di taxawal julli wa yutuuna zakat bu ñu amee asaka war ko génnee waxoon naa fi ne bu ñu déggoon suuratul fatiha bi ñu tari ci julli yépp bu ñu ko déggoon appliqué ko rek penc mi jag waaye malheureusement dañuy julli ba sunu jéy yi dar te aaya wala saar boobu ba léegi mokkalaguñu ko xam nga ne mu neen saaru bi mokkalaguñ ko mooy sahabatul kiram ñoom dañ doon wax ne boo aaya wàccee même bu ñu ko jàngee mokkal ko dinañ fexe ba niñ ko mokkalee noonu kenn lañu koy dundee ci biir penc mi dama wax ne jàppalante ci biir pénc mi alquran jàngale nañ ko ci façon yu bari mbokk yi xool leen rek bu ne nañu julli xam nga tey bi ñu dajee fii ci biir jumaa ji def ay sàppe ba sàppe yi jeex ci biir jàkka ju ñu def ko ci biti waaye bu ñu ne na acca heure bi jot na fokk mu am ku ne ci kanam ki nekk ci kanam nag moom moo ñuy waxaaleel te mooy fatiha bi loolu taxoon ma ne kenn mënul julli yow kese julli yow kese mënoo ko xam nga lu tax mooy alxuraan ni yàlla teggee fatiha boo koy wax ci ci ku ko dégg xam nga ne mënul nekk yow kese ndax bu waxee ne iyyaka na'budu yow yàlla yow lañuy ñuy jaamu te loolu boo ko doon xool pluriel la ko def waaye bu fekkee ne yow kese yaa doon wax da wax ne iyyaka a'budu yow yàlla yow man yow lay jaamu wa iyyaka nasta'inu yow man mi nekk ci kanam di jiite iyyaka wa iyyaka nasta'inu yow la ñu seeg koo xettili ak ndimbal te loolu boo ko waxee xoolal yaa ngi ko waxal ñi topp sa ginnaaw yow boo demoon sa biir néeg di julli noonu nga koy waxee yaa ngi waxaaleel ña nga xam ne sax gisoo leen waaye ay jullit lañ bi ngi ci bare loo ci teg ihdina siraat al mustaqim waaye yàlla yàlla nag ñu saxal ci yoon wu jub bi ihdina siraat al mustaqim tekkiwul ne rek yàlla nag ñu teg ci yoon wu jub bi yàlla nag ñu saxal ci yoon wu jub wi la ndax ulamaul balaaxa dañu wax ne alif ak laam googu ci nekk li muy tekki mooy sabbit naa ala siratil mustaqim te mooy saxal ñu ci yoon wu jub bi ba ñu yegg ci yow ndax mën nga tegu ci yoon bi ba yàgg nga wàcc ko moo tax sabbit naa ala siratil mustaqim lii na nga jàng ko ci biir aaya bi ci biir saar bi kon ñaanal nga yow ñaanal nga sa bopp mais ñaanal nga képp kuy jullit nga dem ba toog di taaya lan ngay wax attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa wa barakaatuhu loo ci teg assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yow yàlla yal na jàmm nekk ci ñun assalaamu alayna ngay wax yal na ñu am jàmm waaye ki nga ñaanal jàmm ci sa biir julli beneen bi ci des mooy booy sëlmal looy wax assalaamu aleykum yal na ngeen am jàmm wax ko sa côté droite wax ko sa de gauche mais loolu bu ñu ko doon wax c'est-à-dire mooy ni muy génnee su fekkoon ne noonu lañ koy dundee ci suñu biir mais pëccëxoo ak problème yi am ci penc mi du am te ay jullit lañ nag mais loo ci gis maintenant wax naa ko fi dem nañ ba ci jàkka yi sax da ngay yëg ne am na feebar bu nekk suñu biir te wéraguñ bu ñu ne nañ taxawal nañ taxawal sàppe si rek coow li commencé bu ma taxawee. nga taxaw sama wet ma jël sama baaraam war ko def ni ko lislaam jàngale bu ma ko tegee sa wet nga puus sa tànk parce que bëgguma ma laal la buñ la waxee ne kaay fii nga bañ ne ñëw ndax na nga jàpp ne waa ji daf lay jàngal cest à esprit boobu ñu am moo ñu tardeel ba ci jàkka yi te yonent bi ma waxoon ne bu ñu demee ba ci biir jàkka sàpp yi di dëng rek xol yi dootul nekk benn mukk loolu ngay gis te sénégalais man dina ma jaaxal trop loo wax wax wax ci diine ji am na ñoo xam ne mënoo ci ñoom dara fii ngay wax ne képp ku dugg ci jàkka fekk sapp yi feesul nga dem beru fële di kabbat di julli yow kese te am na sapp yi feesagul sa julli amuloo julli te mënoo fexe ba loolu ba ñu am ci jàkka yi et malheureusement mënoo ko fexe mais loolu du njàngale diine bi ma ciy wax mooy seyduna muhammad moo wax ci wàllu dimbalante moo wax ne al muminu lil mumini kal bunyaan yasuddu baaduhu baada nee na jullit ak moroomu jullitam dafa war a mel ni bâtiment xool nga bâtiment li tax ñu mën a toog ci jàkk ji tey birig bu nekk danga nangoo supporter sa moroomu birig xool nga bu fekkoon ne birig bu ñu bugg a teg du am lu dox loo doo nangu supporter sa moroomu birig dañ fa yàgg te doo am doo am miir c'est pas possible yonent bi jàngalekat bu mag boobu moo wax ni ne na jullit yi ci moromu jullitam dafa war a mel ni tabax tabax birig bu ñëw day gën a dëgëral moroomu birikam waaw ñun nag an fan lañ toll ci xadisu yonent boobu beneen bi ci des mooy Seyduna Muhammad ci wàllu dimbalante te li tax ñu di ko wax dafa jot nag waa xaar yàlla dafa jot waa xaar yàlla politicien xaar yàlla yi ay ma yeeg ñoom ñépp lii nga xam ne moo ñuy moo ñu sonnal depuis nangami at te moo sunu kër yi nekk fii am ay nit ñu jóg bugg ko nangu defe naa ne loolu boo laajoon délégué de quartier yi loolu mu ngi bugg a yàgg te lu mat ñeenti juróom-ñeenti kër xaw ma ah juróom fukki kër ak juróom-ñeent ah dix kër fukk ak juróom-ñeent ci ay kër te waa ji nee nañ bi ñu koy jaay terrain lañ ko jaay damay laaj yow ñu jaay la terrain nga ñëw ci ba ci bërëb bi ñu la jaay nga fekk fa ay kër bu dee ne nit ku maandu nga nit ku gore nga lan nga war a def ah danga war a dellu ca kala jaay ne la yow man jaayoo ma terrain ay kër nga ma jaay booba léegi nit ñaa ngi ci yéeg tribunal di yéeg di wàcc may interpellé nag ñi nga xam ne ñooy ay politisé ñooyu ñoom nañ ko jël ñu def ko seen combat ñoom ñi fi dëkk loolu mooy jaadu nag képp ku dëkk ci gox bi ak moyen boo mën a am na ci jéem nag ñi ci avocat nañ ci wax xool nga li tax affaire ñun di ko renvoyé ñaanu sëriñ si la ah. ñaanu mag ñu baax ñi mooy tax affaire yi ñu di ko renvoyé ba léegi waaye nag ñi nga xam ne nag defuñu loolu na ngeen ci taxaw yéen mooy politiciens yëpp nag commencé ko moo xam foo bokk nag ci parti boo bokk ndax boo waxee parti rek dañu foog ne ñi nekk ci pouvoir bi la donte nag ñooñu ñoo war gën a mën taxawu loolu ndax ñoo nekk ci pouvoir bi nag loolu nañ ci liggéey seen liggéey waaye xam nga ñun li ma jaaxal ci suñu mbokk yi xool nga am na yoo xam ne boo woote woon tey ne damay defar jàkka ji laaj ndimbal nga defe ko sa biir néeg xool nga ki ñëw mën na la fa jox cinquante mille ci biir néeg bi waaye xool nga boo tàntoon fii ci mbedd mi woo télévision yëpp ñu ñëw nga xam ne dañ koy def en direct wala danañ ko def en différé xoolal nga ne dañuy woote jumaa xaar yàlla bi xoolal ki la joxoon fale fukki junne ci biir néeg bi buy ñëw ay sec la lay indil xam nga lu tax parce que dafay siiw loolu mooy ngis tan te alquran nag dafa tere loolu fa waylun lil musallin allazina an salaatihim saahuuna wallazina hum yuraauuna kon nga yàlla buy demee booy wax ni ki nga xam ne julli sax da cee ngistan <laughs> ni dana julli ci ngistan ni ngistan ba pare di julli ci biir julli gi yaa ngi gis sa bopp cest à mooy koo xam ni boo nekkoon sa biir néeg di julli yow kese bu dee man la duma ma jàng saar bu gudd bu dee man la du fa nekk di neexal baat waaye bu ma demee seeti benn mbokk dem ci usta aadama mu am ay gan mu jiital ma ma commencé nag bugg a wane sama bopp non seulement dinaa jàng aaya bu gudd waaye danaa jéem a neexal baat bi loolu nag yàlla taxu doon loolu mu wax mu wax ko wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina yàlla ne na boo may jaamu na ma nang ma jaamu te sellal jaamu gi seyduna muhammad waxaat ci liñ war a mën a tax ñu war a gën a dimbalante mu ne masalul muminina fii tawaddihim xoolal li muy wax de wa tarahumihim wa taatufihim ka masalul jasadi alwaahid ida staka minhu aduwun xool nga yonent bi booy wax da ngay yëg ne kii li muy wax bu ko sàññoon ñi mu koy waxal ñu dundee ko noonu isa staka minhu aduwun tadaa lahu sairul jasadi bi sahari wal xumma yonent bi dafa wax ne dafa joxe exemple manaam julli ji ni ñu war a mel ci seen li nga xam ne mooy cofeel gi war a dox seen diggante ak yërmande war a dox seen diggante ak ñewante bi war a dox seen diggante nee na dañ war a am solidarité bu day ni ni nga xam ne benn yaram benn jëmm nit nee na jëmm ji bu xasee feebar jëmm yaram wi yépp a koy yëg mbokk yi est-ce que am na kenn koo xam ne baaramam dafay metti boppi ba bañ ko yëg xool nga yaramu nit fu ci metti rek dangay ngay jàpp ne yaram wi yépp la et pourtant benn benn cër benn membre ci cëru yaramu nit moo feebar mu ne julli ñi noonu lañ war a mel waaye ñun nan lañ mel solidarité amatuñ ko ci biir pénc mi te ñuy woote naay jullit lañ boo gënoon tey gis koo xam ne dafa sonn sax nga ne du duma ko jàppale ndax euh, cest dem nañ boo dinaa yàq yàq cest à dimbalante bi mu waroon di dem fexe nañ ba penc mi yàqu ko parce que boo ñëwee bugg a dimbale nit sax am ko la wax ne ah kooku boo ko joxee nàngam mais kii yelwaat yow sa kër naan damay yëlwan ñu naan la ñi boo leen yël boo leen dañ koy defee nangam yow sa yoon bu mu ci nekk xam nga yow booy joxe na nga jàpp ne yàllaa tax ngay joxe ka nga xam ne mooy jëfe ji nag xam loolu naa ab jullit noonu la war a tëddee beneen bi ci des mooy sayduna muhammad wax ne laa yuminu ahadukum xatta yuhiba li axihi maa yuhibu li nafsihi waaw yonent bi moo wax ne ngëm sa ngëm yow man sama ngëm mënula mat mukk feeg du li ma bëggal sama bopp moom laa bëggal Serigne mustafa Samb wala sëriñ xalifa Fall bu fekkee ne nag loolu lañ ko wax ci làmmiñ bi rek te duñ ko dund du sotti te loolu moom lañu dund suñ penc mi mbokk yi nañu delloo siwaat sunu bopp xoolaat yàlla li muy jàngale alquran boo wax ne innamal muminuna ixwatun te innama ci langue arab asr la maanaam li muy tekki mooy ñi nekk ñi war a nekk ay mbokk dëgg-dëgg mooy ñi gëm yàlla beneen bi ci des mu ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu nangeen fexe ba nekk benn bu leen féewaloo waaye féewaloo bu kenn xamul moo am tiijaan bi du laalanteeg murit bi te borom tarixa bi waxuloon loolu ñu bind tari ñi samp tarixa yi waxuñu woon loolu boo demee ci association islamique loolu moo fa am kenn ku nekk bugg ne man maa yëf yi boo demee ci parti politique yi loolu moo fa am boo demee ci biir eh, kër yi loolu moo fa am piccxoo bu amee ci kër fan la jëm ci mbedd mi bu demee ci mbedd mi tas ci réew mi kon bu ko defee nañu delloo delloosiwaat solidarité boobu kenn ku nekk nga mën a dimbale sa moroom te yàlla tax bu ko defee li may tëje mooy wax naa ni bu soobee yàlla woowaat nañu borom kër yi woo woowaat nañ leen la vingt six te mooy mardi léegi nag wax naa ko fi waxaat ko fi dinaa ko waxaat imaam yeeg ñépp lay waxaat kenn ku nekk na nga fexe la la yàlla may ci sa diggante sa boroom boo demee nga ñaan yàlla affaire yi yem te buy am ñoom nañu am victoire ndax na addu'a silaahul mu'min yonent bi wax ne ñaan mooy ngànnaayu jullit am na xadis bu wax ne addu'a muxul ibada am na boo xam ne dafa wax ne addu'a huwa al ibada kon ñaan am na solo kon bu demee ba wax ne jëmm bu dekkoon ne eh, jaamu yàlla jëmm la boon bu taxaw ne na cerveau bi ne na mooy ñaan kon yéen loolu lañ leen di sas yéen imam Moustapha Samba ak yéen ñu mel ni ñoom sa Adama na ngeen jàpp seen kursi yi ak ñu mel ni yéen ngeen fexe incha allahu ci seen ñaan yàlla jaar ci ba ñu yàlla dellowaat seen kër gi loolu moom lañ leen di ñaan ñi nga xam ne nag ñooy politiciens yi ñoom liñ leen di ñaan nañ ci def liñ ci man ñoom it bu fekkee ne mun nañu intervenir ñu intervenir yi ndax am na loo xam ne te xool nga am na yoo xam ne bu fekkoon ne li ñu wax ci hadis bi dund nañ ko xoolal bu ñu noon projet bi suba la xoolal rekk waaye nañu fexe bu ñu fexe woon bo xaar yàlla képp ku fii boroom kër nga woo waa kër yëpp xoolal xool nga li ci jàkka ji fii bu ñu noon suuru projet bi dafa am ñoom ñëpp ñu ñëw toog ni ñu toogee xoolal keroog lañu leen delloo kër yi ndax am na loo xam ne loolu moo ci ci ci faj ko la bokk waaye bu ñu ne dañu jëm ci projet bi benn yoon ñaar yoon la gars yi dem commencé tayal juste nag koo xam ne yàlla yàlla nañu ci yàlla defal tawfiq yàlla nañu ci yàlla defal nasr te moo wax ne inna moom mën naa ko def lu ne fu ne te laahu ala kulli shay'in qadir xool nga kullu boobu moom yàlla amul lu mu mënul impossibilité amul ci ko ñaan te moo wax ne ud'uuni astajib lakum yàlla ñu ko yàlla nangul yal na yàlla def jàmm ñu tawat yàlla saafare leen ñi am aajo yàlla faj ajo yi ñi ne ci xat-xat yàlla génne leen ci xat-xat yi ñi am ne ñoo dem barzak yal na yàlla saa defal leen eh, ne ci barke Seydouna Muhammad ñi nga dafa am yu fa xewte mooy benn dal bu daanu am nay xale yu ci gaañu mais heureusement sant yàlla kenn deewu ci ñu ñaanle leen yàlla yàlla yàlla defal leen shifa wa ma dalika ala lay bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.